Euh, tey nag dañoo daje woon fii ci Touba Darou Khoudoss ci mbaar mi euh, dajale woon fi nag lu tollook 338 euh, famille yoo xam ne dañ leen bëgg a jàppale ci weer wi di weeru koor ndax ku na weeru koor xam ne weeru yërmande la waaye weeru ndimbal la it moom suñu mbokk yoo xam ne dañoo dëkk fii ci dëkk bi muy mbokk yi sancaan yi te seen loxo jotul seen ginnaaw waa Touba ca kanam ci njiitul sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal defoon nañ ko daaw jàppale woon lu tollook ñaar téeméeri famille ren nag ñu dolli ko ba ci 338 moom lañ dajale ñoom lañ woon fi dajale leen ngir fas yéene leen jox ndimbal fay bu ci nekk danañ ko jox ceeb ak suukar ak tànnarma ak loo xam ne dana ko mën a jëlee transport buy dellu ci këram. loolu nag ñi ko joxe mooy taalibe Sëñ Tuubaa yi moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñoom ñëpp participer ci nañ ci eh, lii nag dafa doon loo xam ne lu am solo la ndax eh, yoonu murid moom nii rek la baaxoo lépp lu ñu soxla ñu fas yéene du ko defal suñu bopp ndax mooy li Sëñ Abibu waxoon. Euh, képp ku ma bokkal pas-pas weer bu jot nga joxe ñaar téeméer ñu dajale ko defaat ko ci dëkk Sëñ Tuubaa bi ndax ñun muridi kat dañoo jàpp ne bis buñ booloo doon benn lépp mën nañ koo defal suñu bopp duñ xaar kenn ci lenn lii nag lenn benn exemple ci rek waaye Touba ca kanam lii benn commission bu ñuy wax commission sociale euh, moom moo ko yore ci njiitul sëriñ Moustapha Amar waaye ñu ngi dox ci yeneen secteur lu jëme ne que sante am na ñeenti poste santé yoo xam ne tàmbali nañ ko ci biir dëkk bi ci ñeenti xibla yi nekk ci dëkk bi di ko fi def Euh, fan yi nii rek jënd nañ cinq camions yoo xam ne pour tonni mbalitu dëkk bi la ñu fas yéene ko jébbal sëñ euh, Serigne Touba Serigne Sidi Mokhtar di ko ñaanal mu yàgg lool te ànd ak wér ak yeneen jéego yoo xam ne ñu koy def ci lu wàllu lu jëm ci wàllu ndox mi kenn ku ne it xam na ne Touba euh, jafe-jafe ndox dafay am waaye dafa am ay quartiers yoo xam ne ndox ma dafa àggul Touba ca kanam am ci programme boo xam ne dañu def weer wu jot ñu dem ci benn quartier natt nangam ci ay kilomètres yoo xam ne ndox mi àgg fa ñu financé ko ànd ko waa